delloo njukkal maam soxna Mbàkke bismillah ñoo ngi door delloo njukkal maam soxna Mbàkke maam soxna Mbàkke maam soxna Mbàkke delloo la njukkal jaar nana bismillah ñoo ngi door bismillah ñoo ngi door di delloo njukkal maam soxna Mbàkke bismillah ñoo ngi door delloo njukkal maam soxna Mbàkke maam soxna Mbàkke maam soxna Mbàkke delloo la njukkal jaar dana soppi ab toogaayam loolee nag ci doxalinam la ci jëfin ci digganteem ak boroomam ci digganteem ak sëriñ bi nit moom boo xamee sa cër xam li la yàlla jagleel xam li la suñu borom defal nga nangu ko ne ak cant la sa diggante ak sa borom tax na ak cant la suñu diggante ak moom. cant la suñu diggante mbokki daara bi kàddu yi nag mën naa gudd mën naa gat la ma waxoon daaw rek laay waxaat ndax ñun moom yeewu ba noppi ñun ñi jóge ca barab fële yeewu nañ ba noppi xanaa ñi ñi ñi nekk ci barab bii la wax ndax yeewu nañ wala yeewul lay dégg loolu la ñu wax waxoon naa leen daaw ne leen li nekk ci seen wet bu ngeen ko xamoon. war ma ju ngeen ko mën a jox seen diggante ak seen borom seen diggante ak Serigne Touba dangeen ko gën a yokk seen diggante ak Serigne bi man Mountakha Mbacké de na ma ko jàppee mooy dama jàpp ni doomi Serigne Touba bu ma woon mën naa koo dabu ci man foofu la sama pas-pas sama diggante ak Serigne loolu laay xool ci moom it xoolee wu ma ko maam xoolee wu ma ko itam woy jur ab taalibeem laa ngërëm naay saaku ci moom te moom lay wutit sama diggante ak moom jaxasoo gi nag ci saayir ban ko defee yàgg yàgg na yàggul waaye man de man naa seede ne sama diggante sa ba ma ko xamee ba léegi yokku naa ci saayir yokku naa ci bàyyi sama diggante ak si maa samay gaay ñi nga xam ne Sëñ Tuubaa bon kon loolee ñëw gii ñu fi ñëw xam naa ci sama bopp bu baax xam naa ci gëdd baax xam naa ci sama cër bu baax a baax sama diggante sëriñ bi euh, jigéen la nag na ma ko waxee woon daal rek laa ko waxaatee sama waxi daaw mooy mooy sama waxi ren la waaye yoru yoru jigéen doomi maam Thierno moom ni ñu ko waxee ci sayir ne sëriñ bi ak maam na ñoo bokk bàyyi kon day mel ni kon doomi sëriñ Tuubaa la kenn koo ko wetti loolu mooy li am. ni nga jàppee ni ni ni nga jàppee ni maanaam bu doomi Sëriñ Tuubaa taxawoon nga war koo mën a jàpp ku mel na soxna wala ñeneen ñu mel ne ñoom bu nu nekkoon ci àdduna nga war leen a jàppee noonu jàpp naa ne noonu a jàppee sa diggante sa kon foofu laa ne. kon nag yéen waa koñ bi laa wax yéen ñi fi ne ku ci ne woon bu Serigne Touba ñëwaatoon jamono wala bu Serigne Touba dëkkee si waatoon fii mu ànd ak moom liggéey Sëriñ Bamba bu fi kii nekkee te defoo ko. waxoo lu dëgg waxoo lii dëgg. man foofu laa nekk. kenn naxut kenn naxut kenn kenn naxut kenn lu waay nax sa bopp rek nax waaye sëriñ bi moom leer na naññi ci diggante ba borom ci diggante ba sëriñ bi. amul lenn luñ ciy sikki sàkk ci luñ ciy luñ ciy luñ ciy luñ ci xel yaa suñu diggante ak moom dafa leer naññi. Eh, eh, eh, yoon moom. amul amul amul luñ ci lam laa nekk di di di sikki sàkk képp ku mën di doon rek nañ ca doxee ak nañ ca waxee ak nañ ca jëfee noonu la ci seen sëriñ bi di la gàttal ba sa diggante moom waaw kon euh, seere la suñu diggante moom santal la dama ko waxoon tey suba rek laa koy waxaatee nee naa ko woon tey suba bal laa bëgg mu ne ma bal jëlee woon ko ko fii dëgg la waaw loolu moom man moom la. mbooloo mi itteelu leen sama diggante ak moom la waaw waaye nag li ma bëgg mooy sikki sàkku ma ne taalibe yi Sëñ bëgg nañ sëriñ bi te it doomi Sëriñ Tuubaa man sikki sàkku ma ko ndax ñun foofu la ñuy xoole sunu maam ju baax ju li li li wolof di wax naan nit mbir bu la jigee doo ko xam ba ba ba fa bàyyi ko rek nga doo ko naa ci li ma ci xam naa ko yéen a ne képp ku ko bëgg li des nag mooy ñu góorgóorlu te bañ a rax suñu bopp bañ a topp mumbaay mi bañ a topp adduna bi itam bañ a topp adduna bi nga xam ne topp nan ba fàtte Serigne Touba ndax ni may ni may faral di waxee rek taalibe yi Serigne yi naam bëgg na Serigne waaye kóolute gi moo des seen bi am na lépp. desewul dara ci diggante ma borom sëñ son borom jox lépp ci adduna ak ci àllaaxira lépp luy lu baax ci adduna baa muy baax ci àllaaxira sëñ Tuubaa ci fekk na ko heure boo gis soo gis leen ci liggéeyam sëriñ bi doo boo boo sa bopp fàttaliku leen <laughs> loolu loolu loolu rek la waaye ñëpp comme ci man doon te teew ci jataay bi man nga koo sa xool sa bët yërmande yi ay aajo sa waxuñu waxi daanaka dañoo xam ne si li ne Sëñ Tuubaa ko rek te Sëñ Tuubaa ko moom kon looloo fi ne lépp lu dig doyee di doomu aadama akuk yeefus ba lu ko nuru ba luy xajamal pas-pas ci diggante murit nag ñu ca musal te muccal ñu ca ñu doon jaam jaamaati Sëriñ Tuubaa te saa su lu xéewal bu mën di dikk ci ñun nañ xam ne Sëñ Tuubaa fa indi waaye bu fa ñëwut it nañ xam loolu rek lañ la ñaan Mbacke man ngaa faj aaju yëpp nag ñun ñu ci yoon xamal nu mbaa sorel nu lu bon bismillah ñoo ngi doon te doon ñu kër maam soxna Mbacke ngir moo nu gindee te ñu ci yoon xamal nu mbaa sorel nu lu bon bismillah ñoo ngi doon te doon ñu kër maam soxna Mbacke ngir moo nu gindee mboolem ku askanoo si maam Maara Mbacke muy góor muy jigéen nañuy jëm taalibe ñoom ndax bu dóoru toolu ñoom dara duñ ko dara muy yow muy keneen muy mën a kon mboolem ku bokk ci askanu Maam Maaram Mbàkke nañ leen di fonk di leen sàmm kon nag bu ko defee ñu jox daayira yi ñu feeñee seen yéene ci kanam soxna ñoo ngi sant bu baax salaamaaleykum wa rahmatulahi taala. waaw góor a sàmm Ndiaye yal na taxawaay. ñu ci yoon xamal nu mbaa sorel nu lu bon. bismillah ñoo ngi doon delloo njukkal maam soxna Mbacke. ngir moo nu gindee teg ñu ci yoon xamal nu mbaa sorel nu lu bon. bismillah ñoo ngi doon delloo njukkal maam. bismillah ñoo ngi doon di delloo njukkal. bismillahi ñoo ngi door di loolu njukkal maam Soxna Mbakke maam Soxna Mbakke maam Soxna Mbakke